Euh, maanaam euh, loi ak maanaam euh, maam amnistie bi nga xamante ni bëgg nañ ko bëgg nañ ko tëral xel yi de yëpp day dem ci ki nga xamante ni moom mooy Khalifa Sall ak ki nga xamante ni moom mooy Karim pour ñu mën a bokk candidat 2024 alors à chaque fois bu na musaan ñëw invité la euh, maam da ngay am euh, kii boo xam ne da nga naan maam Karim Wade mooy nekk président 2024 alors loolu boo amee ba nit ñi am yaakaar ni mën nañ leen a bàyyi ñu dem euh, ñu dem bokk li nga xamante ni moom mooy moom mooy présidentielle 2024 alors maman ndax nga gisee loolu dafa mel ni kon sa wax ak kii dafa. déedéet lépp mën naa nekk ndax mm, président da nga am ñaari at pouvoir téye sa puce te na ma gisee woon Macky gis na noonu man kenn joxuma ci dërëm tëdduma ci kër kenn lekkuma ci ceeb bi kay jaxu kenn gis nga ñiy wax nii yëpp di wax maa leen ëpp fit maa leen gënal dee ndax man fi ma jafandu dafa wóor Macky Sall la ma am ca moom sax ma ne Faye Sall 2013 ba may njëkk dem Makka màggal tuubaa ba may dem màggal Touba Adama fay moo fa ñëw fi ma dëkkoon Adama fay dañ ko fa tuddee doom bañ ko fa tuddee doom mu ñëw fa ci laa nuyoog moom ma ne ko waxal waxal soxna Marème mu may ma mu jox ma sama wàll ci màggal gi mu yónnee ko un million. Marème fay Sall un million la jox Adama fay Adama fay indil ma un million Marème Faye Sall mi ngi dund Adama fay mi ngi dund. ma jël un million la bala kook sama cinq million dem yóbbu Touba def màggal gu rëy woote pale ne damaa soxla Macky sàll ñeneen na ma recevoir jox ma deux million yoo xam ne maanaam dañ dañ caa xaaj Macky Sall 2009 laa gëj a teg bët kon lu tax ma topp ni Macky Sall dina am lii Macky Sall nii te man gisuma Macky Sall réew mi koo may day doon sa géwél man duma géwélu kenn géwélu yàlla laa ay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ko ñëpp xam. ne bëgg ma ne bëgg ngaa dégg pour maanaam wax ji gàtt. am na ñoo xam ne li ko li ko gàttal la ñuy wax Karim Wade mooy topp ci Macky Sall. Hmm? yéen da ngeen di dof dof lu xam ngeen selbe xam ngeen li yàlla may selbe. 2024 lay nekk wala yow nii damaa jàpp ba pare doo ko toog. 2024 lay nekk déggoo li ma la wax. Mhm. bu nekkul 2024 nekk beneen. beneen kenn mësta dégg ma ne 2024 kenn mësta dégg ci àddina bi ku ndeyam jur ngay teg tànkam ci si ngay teg tànk sa tànk ci suuf kenn mësta dégg ma ne 2024 Karim Wade mooy falu dama leen ne Karim Wade mooy topp ci Macky Sall nay leer ndax fii kat yàlla dafa def tubaari élection présidentielle à 2024 la. déggoo élection 2024 déggoo li ma la bu Macky Sall amee troisième mandat. yéen xanaa yéen da ngeen troisième mandat moom ma waa ma waa président seen biir yéen seen biir da ngeen a da ngeen a da ngeen a dof yéen yéen ñu ci bëri dañoo dof xanaa xamoo ñaari politiciens mën nañoo jàkkaarloo xuloo ci biir nit ñi nga buñ ñibbee ñooy bokk reer. lan nga bëgg a wax foofu. deal dafa am. maanaam euh, Karim Wade ak Macky Sall. Karim Wade fi neen dem Qatar. ba mu fi jógee. kenn gisu ko guddi lañ ko jël yóbbu ko. kon da ngay bëgg a. turam def na nii ba Macky Sall kenn waxatul turam. kon man su déggee da bëgg a moom mooy moom moom mooy Macky gis nga ko dugg seen diggante da nga ciy des man nag waxaluma pour kenn yàlla tax may wax waahidul qahaar yàlla mi nga xam ne mooy borom kun fa yakun moo bëgg Selbé Ndom di ko won fii de gisoo fa ab seetkat buy jël loxo mu rëkk ko ci alxuraan la mu wax am gisul leen ko yàlla moo ma ko may duma ko tiitaroo mais Karim Wade mooy topp ci Macky sàll ñetti màndaay yi sàll Sall ma Macky Sall bugguma man it bugguma ko man ku ma buggul bugguma ko ku ma faalewul faalewu ma la mais du tere li ma yàlla sant li ma yàlla won moom laay wax ensemble gouvernement Macky Sall bugguñu ma man it bugguma leen yàlla bëgg na ma tant pis tant pis ku ma bëgg xayrul ku ma bëggul sa affaire la ndax gis nga lii ngelaw gi dugg fii kenn duggalu ko fi ku dul yàlla sama bisub dee yàlla moo koy rëdd bu dee dinaa dee dinaa dee bu dee damay dund damay damay dund si booruma kenn ndax ndayu kenn gënta liggéey sama nday kon awma pour topp nit duma raamal nit yàlla lay raamal ak yonent bi su jot bi ma koy su jotal di turu turam yii di ko tàllal loxo gisuloo ma ma jël kalaandoo dem ci benn kër kenn kon su ma nee Macky Sall gis naa nangam ci moom rek dafay dëgg ma ne Faye Sall bëgg naa ko torop xam nga ma bëgg Marème fay dafa di jàmbaari jigéen damay xoole Marème fay Kumba Timbo moom mi mu ñor yaayu Macky Sall ba Macky Sall ci ba mën a doon tey Macky Sall président de la République di Sénégal loolu laay xoole Marème fay ndax jàmbaar la ba mu jàppee ba tey bàyyiwut man taal Serigne Touba sa jëkkër lu mu nekk nga nekk ca waaye tey su ma leen ne gis naa Macky Sall nangam barakati laa ilaha illallah muhammadu rasulullahi bu ma doon raamal ay nit ba tey yóbbu nañ ma ca Macky sàll bu yàgg su ma nangu woon nit ñi di nit ñi may woo bëgg ma di leen fréquenté dem a sant may def mais ànd ak ñoom li ñu bëgg li ñu saf ma di leen ko defal ba tey gis na waaw woon nañ ma Macky Sall mais ñooñe dañoo xam ne ñoom li ñu bëgg Selbé du leen ko defal aw damaa yore sama njaboot am na loo xam ne mënumaa dugg ci biis mënumaa topp benn góor mu di ma placer beneen góor wala mu di ma may beneen góor bëgguma ko du ma ko def kon du ma gis Macky Sall ndax du ma ci tar bi yu nit te yàlla subhaanahu wa taala mi leen bind duma ko def tey duma ko def ëllëg maa leen gën a doon nandite foofu waaye damaa lem sama génn ba mu ron ma toog xalaatuñ ko kon gëm leen li ma leen wax Macky sàll bu ko yàlla nangoo dina am troisième mandat bu ko yàlla nanguwut ci kattanu yàlla Karim Wade mooy topp ci Macky sàll waaye du beneen nit buy teg tànkam ci suuf si. Sonko nag. bàyyil Ousmane Sonko da ngaa déggati Ousmane Sonko wax. mais Sénégal yi yëpp yaakaar nañu Ousmane Sonko moom mooy nekk président 2024. man dogaluma man du man maay dogal. yàlla mooy dogal déggal lu déggal man dundee ma xalaatu kenn. man mii sama xalaat dundewu ma ko. Mm-hmm. man man dundewu ma sama xalaat de. Sonko dafa fay. déggoo ma la man dundewu ma man dundewu ma sama xalaat man su ma doon dundee sama xalaat man mii maa doon président de la république du Sénégal man mm-hmm. man su ma doon dundee sama xalaat maa gën a bëgg Sénégal maa gën a bëgg réew mi Macky Sall fuuf. te barakati laa ilaha illallah muhammadu rasulullah bu ma joxoon Sénégal ma jiite ko diriger ko. Mm-hmm. barakati laa ilaha illa am naa fitam am naa jomam am naa expérience am. mais mais maman da nga ne Ousmane Sonko. Euh, waaye bàyyi seytaane waaye. arrêté day day waxtaane dama dégg nga ne Ousmane Sonko kenn dégg. waxal kii mu arrêté déggoo ma ne Sonko kenn déggatu ko de. dama ne nga bàyyi Ousmane Sonko du bàyyi naa féq. waxtaan du ay affaire. ma man ragaluma Ousmane Sonko. ragaluma Macky Sall. ki may ragal mooy ki ma mën a lafañ loo fi ma toog léegi. may nii ba cadde cadde kooku laa ragal. kon da nga bëgg jàpp que ni comme maama maam sénégalais yi lu ñu wax dëgg la ci wàll maam. man mun a dama lay dóor de. fi ñu mën a fi ñuy duggaat mooy comme ni ko sénégalais waxee ne ci wàllu amnistie bi nga xamante ni ah, ñu ngi koy ñu ngi koy wax pour libérer rek ah, wax damay dellu ma expliquer la. du ma la déglu amnistie boobu boobu ngay wax. day am. ndax Karim Wade dëkkut Qatar. mais neen est nekkul jeu boo xamante ni pour maanaam mun a mun a wàññi doole Ousmane Sonko la moom moo tax. Eh, yow xamuloo sax li xew <laughs> Karim bu ne cëpp fii kenn dootu tuddati Ousmane Sonko. waaw kon kenn loolu laa bëgg eh, waaye du tax ma yàq Ousmane Sonko Ousmane Sonko. nga yàqoo maam Sénégal dañ ne Macky Sall bu bëggee def loolu. Ousmane Sonko au début. dama ko seetaan bu baax. ba mu naan alal ji fii la jaar alal ji fii la jaar barakati laa ilaha illallah dama ne ah ñii kii de mi ngi sulli mbóodi ay waa ji am na fulla de man di kii daf ma neex parce que julli bu fii am mark julli damay kontaan ni kii Ibadulaay Saalihin laa doon tudde Ousmane Sonko ak maa bëggoon Ousmane Sonko au début avant de xale yi di ci dee am ko doon seetaan rek di ko déglu dara dara du dara wallaay du dara. da nga rek seetaanu noo ko déglatoo ko. non te dara waral ko. li ko waraloon mooy. yëngal bi mu yëngaloon réew mi ba ay doomu jàmbur dee ci. loolu rek moo taxoon xam nga man damay bàyyi xel lu bari daal am na lu bari loo xam ne bëgguma ko. man ngaa ut réew ba yàlla jox la ko te ay doomi jàmbur duñ ci dee ndax ëmb dafa metti dama ëmb sama biir bi ñaari doom tëdd na ci muy ay seex kon man bu ma sañoon Sénégal lu waaye di ut rekk am na ku ko am ba toog bu yàlla rëddee na sa wàll dina ñëw ci ala kulli xaalin sa wàll dina ñëw man maa bëgg lépp doon ci dal duggeen ma gis fenn duggeen ma gis fenn may xëccoo leen xalaat assemblée nationale man dama ne waa ndax mënu moon proposer woor sama koñ bi ñu wooteel ma ma nekk député taxawal sam ci ci àddina parce que lii may wax ci réew mi lu am importance la daf maa rëcc waaye bés bu ñuy woote waat député dinaa fexe ba ñu fal ma député ndax maanaam war naa am wàll ni may waxee àdduna bi di ma di ma déglu ba di ma woo war naa mën a taxawee noonu assemblée nationale parce que man maa ngi séentu sax du raw loolu ki sama jëmm ji ndax damay toog xam naa lu baax xam naa lu bon te dara lu bon soxlawu ma ko sama réew kon maanaam ñëpp rek muy Mimi Touré muy Macky Sall moom dal na ndax yëgul dara ma ngi ca ma ngi ca ab fauteuilam toog Mimi Touré mi nga xam ne xalaat na ne bëgg naa doon dara lépp lu muy def na doon ndànk Ousmane Sonko mi nga xam ne bëgg na réew mi na def ndànk Karim Wade mi nga xam ne mi ngi yóotu moom it na def ndànk Khalifa Sall Barthélemy Dias bëgguma sax moom mu yëngu man ma soñoon ñëpp ndànk rek ndax ndànk daal moo gën ci réew mi. comme ni nga ko waxee mais tey maman ba léegi sama question euh, nanguwoo cee tontu dama ne maanaam bi loolu amee Sénégal lañ ne mag Sall dafa bëgg jël ki nga xamante ni moom mooy euh, Karim Wade ak Khalifa Sall pour mën a wàññi doole Ousmane Sonko foofu laay laajee aussi tamit est-ce que dégguloo li ma la wax xanaa li ma la wax dafa jeex xam naa ne yàgg-yàgg man mii Selbé Ndom taalibe sëriñ Touba ndax sama baay moo tax ma doon taalibe Serigne Touba bu du toon sama baay du ma doon taalibe Serigne Touba bay jébbalu ki sëriñ tuubaa mu di ma nangul sama taalibe te fekkew ma génération dégg nga ma bu baax a baax bu du toon moom ci Seydina Mouhamed laa yem bu du toon sama baay ki Seydina Mouhamed laa yem ndax yàlla moo jox Seydina Mohamed kon maanaam tey man Selbé Ndom lu mel ni gis naa ko du dañ mukk combat yi fa mbër yi di di waaje fekkewuma ko lu tax ma mën a tëdd sama lal bii xam ne mbër mii nii lay daane kii li may def dama ko mën yàlla moo ma may duma ci tiitaru nag te duma ci beew te duma ci fuuy mais incha allah Karim dugg ci Sénégal incha allah lii ba ma ko ba ma ko dalee wax yàgg na de Karim Wade nekk na prison man ma seeti ko ne ko bés boo doonee président je veux être ta conseillère je veux une conseillère pour. relation ak Karim Wade lan la à fois dañuy dégg. dara balaa moo tëdd kaso laa ko gis gis yi muy yore classeur yi muy yore def ci ay kayem di tëdd ak moom di jóg ak moom man xamoon naa ne ñoom liñ ko jiin du dikki fenn ndax ay kayitam yu wóor la yor. bi ñu ko tëjee laa dem foofu ut audience wax ko ko dafa jooy maa ko nag bés boo doonee président ma ne ko yaa topp ci Macky Sall bés boo doonee président incha allah ca kaso ba laa ko waxee ma ne ko bés boo doonee président consa conseiller dong laa bëgg a doon nu ma ok deuxième fois bi bi mu waxee bi ñu ko dee mi ngi lay seet dafa ne déedéet ndax ndaw si buy wax damay jooy te bëgguma nekk ci kaso bi di jooy. ci boppam moo la wax mu ne man su ma taxawee su may wax ak moom moom day jooy te moom bu nekk ci kaso bi. bëggul bëggul bëggul jooy ci kaso bi kon Selbé Ndom li mu la waxee loolu moment boobu noonu lan nga yëg dama ko yërëm ko yërëm xam nga ki sañ dem ci nit ñu tëj la nga taxaw ne ko bul jooy bul am dara loo naqari lii gisoon naa ko bu yàgg kii doon président yooyu topp ci ci ci ci kawam gis naa la bu yàgg nga yore say këyit lii ñu la jiiñ du mujj fenn dalal daa jooy kon man li may wax ñeme naa ko Macky Sall xam na ma 2009 laa laa ko wër ba gis ko fii ci jumaa ndawen gii ci ci ci ci jumaa laayeen bii mu ñëwoon jaale si foofu ànd ak ñoom ñoom euh, euh, Pape sàmba mooy chef de protocole kooku moo bëgg Macky Sall ba bu xoolee Macky Sall day xoolanteeg moom ñoom ñaar ci bët lañuy wax Pape sàmba foofu yëpp fees gàddu koor yu ngande ma xuus ñu dem ma jàpp ma fi pour rek yuuxu ne ko yow yaay topp ci Ablaye Wade daj nga buntu ba yow la maa la gis boobu rob bi ma sol rob bu bon laa sol yore fukki dërëm mu làmb poosam daane e eh, bàyyi leen ko bàyyi leen ko téye ma téye sama ñaari loxo téye ñaari loxom téye ma nii bës ba mu dëgër xool ma ne ma yow la kan ma ne ko man la Selbé Ndom yow mii Macky Sall yaay topp ci Ablaye Wade gis naa la mu bàyyi loxo bi jël loxom def nii barkati laa ilaaha la ma ne ko bul ma may soxloo ma sa xaalis te boobu aw ma lu ma reere maak samay doom fukki dërëm laa yor sama loxo. boobu mujj laa may xaalis booba àll laa am ba ma ne kon ñëw ma pour nga may ma dama laa wax nekk ne yow yaay doon président dara indiw ma fi. mais bu mu toogee ba léegi est-ce que jot na recevoir waxtaan ak yow pour nga fàttaliku li nga wax ni parce que lii dafa am important. recevoir ma xëy na dafa jotagul ndax lu yàlla dogalul du am bu yàlla dogaloon ne Macky Sall dina ma recevoir alaa xaalin balaa moo jógee ci réew mi dinaa ko gis waaye man maa leen wax ne Macky Sall benn mandat dong la dese. mais est-ce que nga am nga yaakaar mu que mi ngi bëgg a yàgg boobu ba léegi 2009. non non loolu de ci moom lay dépendre bu nekkoon Macky kese kese kese am naa yaakaar ne euh, recevoir nu ma mais euh, buur aayul dag yaa aay ndax suq yi nga xam ne dañuy dem ca pale bi di topp ministre yi ndegam suq yooyu nga xam ne jarul sax wax nañ bàyyi lépp ci loxo yàlla man man merew ma kenn ginnaaw yàlla mi ngi may may wér. Mhm. macha allah maa sama njaboot nit ñaa may woo may am sama fukki dërëm di ci suturlu du jar may mere kenn naa delloo lépp si loxo yàlla subhanahu wa taala moom moom mi nga xam ne mooy borom kun fa yakun awma droit boobu sax ndax jullit am na loo xam ne waru koo def waaw te ginnaaw yàlla def na nit ñi dañ may déglu bëgguma wax loo xam ne dafay déborder. alors comme ni nga ko waxee nee naa man à chaque fois damay am mbégte euh, di ko dalal alors fi ñuy dikkaate rek mooy